Ya ya suñu joggé ci scandale bobu am fofu ci poste dañuy dellu siwaat fi ci Dakar suñu ñëw ci Dakar nak xam ngeen ni ay fan yele ñu genn ki di Thierno ah, Amadou Diallo ñi jàppoon ko fofu mu nekkoon fofu ca kaso ba mujj na am liberté manam provisoire genn na amna libre na dal jamono ji mi ngi kan moy Thierno Amadou Diallo Thierno Amadou Diallo du kenn ki nga xamanteni mom mo moo filmé woon kii di kilifa mom mo taxone tay kilifa mi nekk yana a marre ak ki di Simon Kouka nekkoon fofu sous mandat de dépôt ginnaaw loolu nak euh, ki di Simon nak mom ginnaaw bu mu amé feebaru AVC ay médecin confirmé ko médecin prison bi confirmé ko si lañ ko mujj accordé liberté provisoire ginnaaw bu mu ko njëkkee déposé ñu rejeté ko deuxième dépôt bi accordé nañ ko ko ki di Simon génn na mais kilifa mi ngi fofu ci kasso ba mais ki di Tierna Amadou Diallo mom génn na mais nañu japp ni que Tierna Amadou Diallo ba muy dugg ci kasso bi bobu vidéo yi génnogul won. Thierno Amadou Diallo ba mu nekkee ci kaso ba leneen moo ko fa yóbbuwoon parce que neen dañ ko jàppoon muy cambriolé benn kër loolu moo ko dugaloon ci kaso ba ginnaaw loolu nag la vidéo yi génn bi vidéo yi génnee ñu gis ci mu inculpé ci kii di kilifa du membre Y'en a ñu doon wax affaire trafic de visa mu yëkkati lu toll ci cinq millions jox ko ko ba noppi daal di koy filmer ñu waat beneen vidéo boo xamante ni moom ak Simon Kouka bu membre Y'en ñoom ñoo ci nekkoon ci Simon war ko loué passeport am mu war ci tukki gis ngeen coow loolu lu mu fi soulevé woon ay wax yu bare am ci ba Y'en a marre génn ci def ci ay point de presse ginnaaw loolu bi Thierno Amadou Diallo génnee kii di Simon am liberté provisoire waaye Y'en a marre ngi doon def pression ci justice bi pour ñu génnee kii di kilifa aussi parce que nee nañu Simon su génnee Thierno Amadou Diallo génn donc kilifa warul des ci kaso bi ginnaaw loolu déposé woon nañu sax benn marche boo xamante ni waroon nañ ko def démb ci ajuma bi 10 euh, décembre mais ginnaaw loolu préfet autorisé wu ko parce que nee na dafay ragal mu am trouble à l'ordre public ñoom nag bi ñu ñëwee loolu àndoon nañu ak frappe bu Guy Marius Sagna ñu ne ñoom dañuy défier lii préfet wax dañuy def seen marche mais ginnaaw loolu jàmmi réew mi mu jay si Cissé ONG 3D jiite ko séq nag ñu waxtaan ba ñu mujj teg loolu si suuf mais delloo waat nañu buum ca mboy mboy ga nee aljuma bi di ñew ñom dañuy déposer waat sen demande d'autorisation pour dem marché gi am nañ ci droit constitution bi mo leen ko may nee kep ko xamanteni amna loy ñaxtu nañ la jox nga déposer demande préfet préfet autorisé la nga def sa marché pacifique gendarme yi takk yi encadré la loolu loi mo leen ko may mais loi aussi may na préfet yi suñu gisee ni que marché bobu mën na indi trouble à l'ordre public ñomit ñu bañ ko autoriser parce que loolu loi la ndaxte ñom ni ñu amé droit marche aussi non la mes droit bañ autoriser marché bi parce que ñom ñoy yor renseignement généraux nous ñoo xam lan jour lan lay jëriñ te seetlu nañu bu baax a baax yenn saa yi marché su amee dafa am ñeneen ñoo xamante ni dañ ciy loru ndaxte yoon yi ñuy jël ak fi ñuy jël lépp luy oto di fa jaar du fa jaar tey aman na koo xamante ni am na soxlaam war ko dox ji yoonam nekkul ci marché bi dinañ ko mujj bloqué dina am koo xamante ni xëy na dafa feebar waroon dem hôpital xëy na embouteillage dina am ba nga xamante ni dootul mën a dem faju yi te loraange mën na ko ci fekk donc souvent nañuy sóoraale loolu yëpp ginnaaw bi loolu amee kii di Thierno Amadou Diallo mi nga xamante ni moom moo filmé woon kii di kilifa à son bim ko filmé nak ba nopi kilifa génnoon na def ben point de presse ne liñuy wax affaireu visa du affaire visa affaire njaayum auto la ginnaw loolu nak bañu xolé benen vidéo bi nga xamanteni ni génnaatoon na loolu moo inculpé won ki di kilifa ñi jàpp ni que dafa joom moy liñuy ñuy wax yéenewuñu ko mu teud fofu mu nek mais na jàpp ni que tey juum na def na lo xamanteni ni waru ko woon def ndaxte wàllu njuuj la walu fraude la walu trafic la te tay mom dafa doon mbubboo yaanaamaar xeexal na Sénégal 2011 mais da doon wo Sénégal ci walu justice da doon wo Sénégal Sénégal pour ñu tegu ci yoon da doon woon Sénégal nga xamante ni lépp loo xamante ni njuuj njaaj la ñu xeex ko ci donc mënoon nañ ko fekk ci lépp ba mu des lu jëm ci wàllu njuuj njaaj mais vidéo yi daf ko inculpé ñu fekk ko ci wàllu njuuj njaaj ba noppi mu jógaat def point de presse taxawal jàkkaarloog askan bi nga xamante ni ñoom ñoo ko wóolu woon joxoon ko seen kàddu di ànd ak moom ba pare fen leen lu tax ma ne def leen fen ndaxte dafa yëkkati ay kayit nee na moom musul def affaire visa affaire njaayum oto la doon def

beneen yoon dootuma dalati mais tey yaanaamaar ñu bëggee mbubboo combat boobu pour taxaw ne kilifa deful dara je crois que dañu yeb askan bi yeb ñi nga xamante ni tey ñi ngi tëdd foofa ca rëbës ndaxte tey foofu kilifa tëdd am na ay junni doomu Sénégal yoo xamante ni ñi ngi tëdd foofu di xaar juge ubbi seen dossier pour ñu woo leen mais boobu ba tey kenn woowu leen te pour pourtant ñi ngi fa tëdd ak seen dignité ak seen ngor am na ñoo xamante ni benn corne yamba lañ leen fekkee ci ramas ba tey jii ñi ngi tëdd foofu ca rëbës am na ñoo xamante ni nit doo nga jóg kii kat dafa ma doon defal visa jox naa ko xaalis amul video amul signature amul dara tey ñi ngi foofu sous mandat de dépôt ñi ngi tëdd di xaar seen peine kon yaakaar naa ni tay kilifa du question ni que amna na tur rek tey mi ngi fofu sous mandat de dépôt rek dañu war a wax ci réseau yi wax ci presse bi pour ñu libérer ko ndax ndaxte ñom su dee loolu lañuy doxal tay ñom je crois que injustice bañuy xex ñom ñoy ñooy so xel luy injustice ndaxte tay seen ay morom ñi ngi fofu teud ci biir kaso ba te musuñu jóg xexal leen donc tay kilifa su dee yalla moko ko ba mu daanu ci loolu bañu tek fofu ci mandat de dépôt ñom la première des choses bi ñu waroon dawal moy na justice def liggéeyam justice su defee liggéeyam ñi xamné ne kat sen membre bu mu

Simon li ko indi laay bëgg a leeral Simon man ak moom amuñu benn xaar ma yàq. par exemple man kilifa dama jékki-jékki ba ma desee cinq jours ba ma sept jours pour ma jeexal samay deux mois ñibbi samay si sama njaboot n'est-ce ñu jàpp kilifa biñ jàppee kilifa man ñu extraire ma prison ba yóbbu ci kilifa. au lieu mu wax foofu waxu nit di fa waxu ñàkk fayda ko ay oto laag ay dugg na fii génn fii man tamit magum jëm laa ragaluma kenn ku dul yàlla aussi ci dëgg laay dox kilifa bu ñëwoon na ma grand bal maa man maa lekk sa xaalis na fi yem barki yeneen bi dafa doon yem kon dossier bi du ak ci fii nii yëpp mais kilifa moo ñëw di wax ay wax yu kenn xamul ma ko sama waay ma ne ko yow saa waay du affaire oto nañu waxante dëgg si ak si avocat ñoo fi nekk yi saa waxal ni mu demee mu ne ma non non ah dugg na fii génn fii ma ne ko sëñ bi comme que loolu la nag nañ ci dem mais moom rëccu na ko moom yëfu tuuna yooyu moom moo ko def moo tax mbir mi ak si fii mais jour boobu kilifa mënoon na yemale foofu lépp mu yem fa ku nekk dem sa mais aussi nit ñi di wax ay kii moo nekk si ginnaawam dafa négocier penam dafa bëggoon génn prison mais leer suñ ma fa waxee waxam mbir mi su ma fa waxee waxam du ma jógee foofu c'est impossible magum jëmm laa xam naa ni ni yoon di dox parce que ki passeport Simo bi te nañ ma ci 2014 <coughs> def naa ci prison Italie def naa ci prison Tunisie ndax passeport boobu parce que Tunis Air laa jëloon Tunis Air laa jëloon voyage si est que dañ leen waxu Simo wala waxu waxu ca bi ñu jàppee Simon mais si ñu woowee Simon mu ñëw Simon di wax leneen ay waxu empreinte ak yooyu mais nit ñi dañoo tukki dañu voyagé boo yoree passeport européen yi sa waay sa waay gars yi dañu xool sa passeport bi nii rek bàyyi la nga am na am na benn ligne ligne bu la laa jaar foofu ngay jaar pour mën a romb da ngay romb dem sa yoon ñi am ay séjour ak yooyu ñooy ñooy taxaw di rang pour ñu jël seen ay empreinte ak yooyu donc kilifa caat dañ ko naroon a téye caat caat bi tey nii moom mu muy dégg doful jëndee xamoon na bu baax la moo nekk suñu diggante rëpp rëppam bi yëpp xam na bu baax lan moo seq suma diggante ak moom caat biñ ko woowee caat dafa naroon a ñëw man maa déchargé caat caat man maa ko déchargé mais dañ ko naroon a téye gars yi wax ma ne leen voyagé naa ci passeport yu Simon du benn du ñaar du ñet maa ko wax j'assume lu tax ma waxu c'est pas pour sànk ko moom mais pour ñi leen di seen conseil yi leen di dugal naan leen ay non wax leen lii wala sa waa ji ah, dafa nekk di négocier am na ku nekk ci ginnaawam su doon loolu la waxu si moom du ma ko fa tudd ma ñibbi dama doon ñibbi bu doon waxu kilifa la rek la ñibbi naa bu yàgg kon waxatuñ wax bii nii loolu andi si moo mais si moo amuñu benn contentieux amuñu lenn moom personnellement wax na ko grand tiers respect laa ko mas a jox ñu waxtaan ak ay détenu foofu grand tiers respect laa ko mas a jox masuma woo ma bañ a jël moom ci jëm boppam nee na par rapport ak kilifa bi mu doon woo ko jël parce que coow li yëpp bu agsee fii kilifa dama ko doon woo jël téléphone am di ma jox ay rendez-vous di ma faussé su ma ko bëggee jot il faut ma jël beneen téléphone woo ko ci mu jël su xamee ni man la mu coupé. waaw mais xam nga lu déclenché mbir yëpp vidéo yi la. vidéo yi nag moom moom mu leen bëgg sénégalais yi xam. kan moo ko joxe ba mu dem ci. parce que man boo joxul ci internet ay vidéo mënu koo génne. non non non site boobu yàlla bi ma tiim seddal nii site boobu jour boobu laa jour boobu laa xam site bi nu mu parce que eh, man boobu suma kër ba tey jii lijjanti woo kan moo joxe vidéo yi. mais bañ a lijjanti daa ko lijjanti sëñ bi mais am na loo xam ne doo ko wax man am na loo xam doo ko wax. da def comme ñoom niñ doon. comme ni ko moo pour ñu setal sa der sa diggante état bi dina jafe. non loolu moom loolu moom fii moom xam nga gars yi xam nga faay gars yi fii moom lu jóg ñu ne état enquête bu mu ngi en cours man def naa sama plainte contre x def naa sama plainte contre x dinañ ko topp ba xam fu vidéo yi jugee moom kon ne foofu si caat tuuti nga may ma caat moom ci jëmu boppam toog na plateau télé wax ko

ñoom xam nañ man xam naa yàlla xam na donc du fii laay toog te naan ay non lii moo ko fi indi woon lii moo ko fi indi woon non non non jaru ah, baax na dañ ko naroon téye dañ ko naroon téye moom tamit. ma maa ne enquêteur bi carrément kii yoonam ne ko ci fekkewul tinul loolu tax caat ñi bi ñun ñu des prison man xamoon naa damay desaat ci desaat ci kaso bi. parce que même prison bi gars yi wax non. dérangé wu la. non c' pas que dérangé wu ma du question de dérangé wu ma mais ay vidéo fuite nañ ñu nar a jàpp kilifa man may nekk si biti loolu du ngor yenuwul maana yenuwul maana dañu wax noonu ay noo sa famille ma ne leen kilifa dafa am jabar dafa ñaari jabar ak ay doom man ma am ñaari jabar ak ay doom man lamay may yëg la kilifa di yëg li kilifa moo tax déggoo len sëqat déggoo leen ma nooyi mais nag dama am avocat dama ko fay dama ko fay deux millions trois millions lañu waxaale ma jox ko deux millions mu des un million euh, dama lay expliqué cest à li ma bëggee expliqué du question de xarañteefu avocat laay wax waxewu ma foofu mais dama ne man dama fay sama avocat nekk ci biir kaso bi sama avocat di liggéey ma koy wax lii ak lii ak lii ak lii mais dama ne bu doon nit moo nekk sama ginnaaw man ñàkk ma fayda ba nit di nekk sama ginnaaw mooy kaso kon gendarmerie la affaire yi doon yem ma dem ñibbi ñu bañ waxati sax affaire yu kilifa wala affaire keneen. gaa yi dañuy wax ne. cambriolage bi dossier cambriolage bi nga jaayee ñoom kilifa. waaw non non xam nga loolu moom ay wax la rek loolu moom ay wax la rek. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo kaddu yi nga xamante ni kii di Thierno Amadou Diallo séq na ko suñu naataangoo boobu di Pape Alé Niang foofu ca muy ay kaddu yoo xamante ni kii di Thierno Amadou Diallo moom moo filmé woon vi kii di kilifa. ak Simon à leur ainsi madame yëguñu ko woon muy ben délit bo xamanteni ni bokkul ak délit madame trafic de visa ak faux euh, visa ak euh, passeport diplomatique yi tay yéen a déggandoo yi nga xamanteni ni Amadou Diallo waxnako na ci kaso ba lañ ko extraire bañ ko extraire mu ñew jakarlo kilifa nee tay kilifa amna lu mu doon waxee.

jabaram mo waroon tukki ak euh, rakku jabaram bi nga xamanteni dafa waroon euh, jabaram bi waroon jàngi ak rakku jabaram ak ay domam ñom ñoo waroon tukki ji dem ñu wara voyager donc je crois que khalis la yëkkati jox ko dégg ngeen Thierno Amadou Diallo neena tay su doon victime mom moy victime lu tax mu filmer kilifa nak neena mom mo xam tax mu filmer kilifa ndax te kilifa ci point de presse am taxawoon na ne ki xaritam la ben bakkan ànd nañu pendant 20 ans neena kilifa du xaritam ab xameelam la kan mooy tax ñu xamante du kenn ku dul caat moo doon intermédiaire bi ndekete moo leen boole woon naka la leen caat boole woon ndekete caat moo leen boole woon ci wàllu pour def ay trafic de visa kon leer na ni que kii di caat ak kilifa dañ doon def wàllu trafic de visa ndaxte soo jëlee nit ba di ko booleeg nit je crois que xam nga ci lu mu nekk donc je crois que caat tey su dee yëpp askan bi rek moo tax muy toog ci plateau télévision yi di yuuxu di crier wu ndaxte kuy yuuxu di crier wu contre l'injustice dafa war a fekk yow say loxo set yow say loxo setul yow yaa ngi ci njuñ njaaj ba pare nga bëgg a woo peuple bi ci wàllu justice tey yaa ngi taxaw di décrier euh, la gestion euh, du gouvernement actuel dañu nekk ci njuñ njaaj justice bi daf tëddeewul njaaxaanaay justice bi c'est une justice à deux vitesses kumba am ndey kumba amul ndey la alors que yow yaa ngi ci loo xamante ni moo gën a raw kumba am ndey kumba amul ndey yaa ngi ci ay luubal Thierno Amadou Diallo wax nako neena mom mo la sauver ndax te ndaxte su la sauver wul won ni ñu defee Simon mandat de dépôt woko ko ginnaaw jappé kilifa dañ lay wo mais xeyna kilifa mo bëggoon détourner situation ba alors que démé wul noonu tay mbirum Simon démon na ba ci ay journalistes yu bëre taxaw ñom pap Matar Diallo taxaw di défendre dina loolu mënul nek mënu ci voyager kilifa euh, Simon musul loué passeportam ndax de so démé ci aéroport bi déggé li len Thierno Amadou Diallo wax voyage euh, passeportu Simon moom Thierno Amadou Diallo voyagé na ci voyagé waate ba bu ci mujj dañ ko ci tëj kaso foofa ca Italie Tunis Air sax la jëloon ba mu ñëwee ba Tunisie ñu tëj ko ci ndaxte ku nekk xam na ni passeport européen soo ko amee am na benn ligne bi la boo xamante ni parfois soo fa jaaree da ngay dem directement da ngay teg passeport mu ubbeeku doo fa teg empreinte doo fa teg dara donc c' était benn système de manipulation boo xamante ni bëggoon nañ ko indi pour leurrer nit ñi li may wax rek muy kilifa muy Simon muy caat kenn si ñoom yéenewuñu leen musiba mais tey ñoom ñoo toog woo askan bi ci benn mouvement Y'en a benn slogan boo xamante ni nouveau nouveau type de sénégalais la NTS nouveau type de sénégalais maanaam sénégalais bu jub sénégalais boo xamante ni dëgg ngay dox sénégalais boo xamante ni lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu njuuñ njaaj doo ci dugg tey ñoom la ñu njëkk a jàpp ci wàllu njuuñ njaaj tey ñoom la ñuy njëkk a jàpp ci wàllu fraude ñoom la ñuy njëkk jàpp ci wàllu trafic de visa te tey ñi ngi mbubboo askan bi nee naa la ñoom ñëpp ay rappeurs la ñu woon ñoom ñëpp dañu doon génnee ay cassettes ñoom ñëpp dañu doon tëgg ay concert mais dem nañu ba benn instant mouvement activiste bi dafa mel ni moo ëpp xaalis parce que ñu ngi koy politiquer génn nañ ci mouvement citoyen ci politique lañ nekk ndaxte suñu demee ba soxla benn affaire dañuy génn utiliser askan bi naka la ñuy utiliser askan bi maanaam mel ni askan bi la ñuy xeexal alors que xeexaluñu askan bi dañu bëgg askan bi gunge leen ñu am benn masse après ñoom ñi encaissé la ñuy encaissé ci wàllu ONG yi dem ci yenn sommet yi def seen poche jënd seen ay 4 x dem takk seen ay jabar dem defi seen ay voyage ñu bàyyi leen yéen askan bi ci ndóol kon li ma koy waxee rek Sénégal nañ ñu yeewu gis nga tey nee naa leen fii kenn mënatu fi nax kenn ay jeunes ngeen ay jeunes lañu ni ngeen xamee àdduna noonu la ñu xamee àdduna ni ngeen tukkee noonu la ñu tukkee fu ngeen dem dem nañ fa am ngeen sañ-sañu nag créer seen parti politique taxaw opposé wu ak euh, parti au pouvoir mais su boobaa da ngeen di assumer wu ngeen ne ñun kat parti politique la yor on est des politiciens dañu ñëw pour taxaw opposé wu ñi xam jikko politicien ngeen yor mais mun leen wo askan bi tay ci mouvement citoyen mun leen wo askan bi tay ci defar jikko yi mun leen wo askan bi tay ci lo xamanteni deug la yeen ñi fekk seen ay membres ci lo xamanteni du deug je crois que tay Alioune Sané c'est quelqu'un qu'on respecte très bien tay man Y'en a marre mën naa ne Alioune Sané laa ci gën a ak Fadel Barro des gens qu'on respecte très bien ndaxte mosuñu leen dégg ci lu ñàkk fayda wala tur consort tay nak bu len bok ci ben mouvement ba pombiteer yu nebi bëgg yaq yàq seen saako yëpp tey su amé ay pombiteer yu nëb yu nekk seen bir sako da ngeen len di seppi sanni len fële ngeen continuer seen mouvement yana mar mais tay caat moo occupé plateau télévision yi caat moo occupé di indi intimidation nañu génnee kilifa mais pour la ñuy libérer kilifa dañ ko teg sous mandat de dépôt dañ ko inculpé vidéo moo ko inculpé en flagrant délit yoon téye na ko mais kilifa dafa nekk ak ay moromam kilifa dafa nekk ak ay sénégalais yoo xamante ni pendant des années ñi ngi tëdd ci kaso bi ba tey jii kenn lijjantiwul seen dossier donc duñ ko jaarle ci yoon nañ ko fexe jaarle ci yoon mais tey su ngeen foogee ni que kilifa am na tur maanaam tay kilifa c'est un personnage boo xamante ni il est célèbre donc dañ ko war a yuuxul mu génn mais tey ku célèbrewul naka lay mel donc kumba am ndey kumba amul ndey boobu yéen Y'en a yéen a ngi koy population bi tey su ngeen nee état du Sénégal tey kumba am ndey ku am tur dañ lay teg fële mais tey su ngeen di naan injustice ou bien quelqu'un est au-dessus de la loi yéen a ngi koy wanee tey parce que tey bi que Simon génnee mais Simon feebar moo tax mu génn te yoon daf ko ko may ndaxte soo feebaree tey tey feebar boobu mayu la nga nek ci biir kasso bi la nga am droit pour am liberté provisoire guen ci biti dem faju ji donc lolu yoon moko ko may mais kilifa xëy na feebarul dara jotu ko léegi avocat yi lan lañuy ñuy jël maanaam médiatiser ko dem utiliser presse bi def ay communiquer di wax lo xamanteni ñom lèr leer na leen dara du ci deug tu yagge sax ñu la demal nga def grève de la faim so defé grève de la faim 3 jours 4 jours ñu ne non feebar na nañ ko yóbbu pavillon spécial après nañ ko génne léegi mo am liberté provisoire guen ci biti ana moromam yu mu bàyyi ci kaso bi ana ñoo xamante ni ramasse moo tax leen ana ñoo xamante ni dañ leen accuser tout simplement ana ñoo xamante ni dañu am présomption d'innocence ba tey jii ñu ngi tëdd foofu ca kaso bi pendant deux ans trois ans juge avocat sax amuñu ko je crois que tey su ngeen di woote injustice di woote ni askan bi moo leen ñor da ngeen war a njëkk xalaat ñooñu liberté neex na trop mais saa yu ñu yeewoo war nañu xalaat ña nekk saa ñu yeewoo war nañu xalaat ña nekk Camp Pénal saa yu ñu yeewoo war nañu xalaat ña nekk Sébikotane saa ñu yeewoo war nañu xalaat ñëpp ko xoo ma képp koo xamante ni caabi daf ko féetee ginnaaw ndaxte sa biir kër sax suñ la tëjoon si sa biir ne nga am lépp ngay xool naka ngay mel waxatuma laak nag ñu yóbbu la fële ci rëbës ak nu mel ngeen xool tey waa chambre vingt neuf waa chambre quatorze waa chambre huit waa chambre neuf chaque fois dañ may interpeller maanaam ci ni may li may leen di éveiller ni may waxee dëgg bi ci seen kanam donc je crois que on a besoin de ça surtout loolu nag ñuy ñaan ministre de la justice tey euh, démb mi ngi woon foofa ci assemblée nationale nañu gaawal yenn dossiers yi ñenn ñoo xamante ni defuñu dara nañ leen teel a jugé ñu ci mën a libéré ñu libéré ñu ci mën a yóbbu ci ay centre de réinsertion ñu yóbbu leen fa pour mën a libéré prison yi ndax teg dëkkinu kaso yi métti na trop dem ngeen ba neen da ngeen di changé rëbës da ngeen koy toxal dem tabaxi ji ko feneen je crois que balaa loolu xool leen yenn dossiers yoo xamante ni yàgg nañ fa ñu war leen juger ngeen juger leen am na ñoo xamante ni fay nañu seen avocat ba ñu fayee seen avocat la ñu gëj gis seen avocat Thierno Amadou Diallo wax na ko ba ñu fayee avocat la ñu gën gis sen avocat tay juge bi su yoré 400 dossiers avocat bi yorna 400 quatre dossiers mais avocat yi maintenant dañuy politique dañuy xol ko am tour ñu jël dossier am ko ci kaw médiatiser ko pour ñëpp dégg leen pour ñu mëna yok sen ay cachet je crois que jot na jamono ji ñu léral askan bi que droit de marche amna nit ku nekk am nga sañ-sañu dem dugali droit de marche mais lan ngeen di marche tey pour ñu libérer kilifa par la force mais tey kilifa dañ ko inculper dafa am ay vidéo yu wane ni que kilifa a fauté yéen ngeen gis koo xamante ni fote na ngeen ne kii nañ ko génnee ci bit léegi ña nekk ca kaso ba nag lu tax du ngeen leen xeexal lu tax du ngeen leen xeexal préfet nag su gisee ni que am na trouble à l'ordre public su ko neexee mu ñàkk autoriser marché boobu mais su gisee ni que amul trouble à l'ordre public na leen autoriser seen marché ngeen def seen marché pacifique ngeen dem toogi fi leen neex man de waxoon naa fi si benn émission

kenn toppatu leen si seen ay marche ndaxte defu leen marché yi dara loolu su ngeen génnee amul coow ngeen créé scandale créé ay violence yàq ay oto jaamul taal ay pneu empêché nit ñi doxi seen soxla alors que am na ñoo xamante ne am ñu soxla yu ëpp farata seen marché yooyu ngeen dox je crois que yéen a war a njëkk a conscient dimbale Sénégal su dee Sénégal moo leen ñor ngeen xam ni que seen marché yooyu jëriñul dara la justice personne ni kenn nous bi mënatu ko intimider lenn moo fi am dañuy doxal yoon les lois ont été votées la constitution a été rédigée donc ku ci nekk faute bi nga def dañuy war a topp yoon amul A nag amul B amul xaj amul seen képp koo xamante deful dul yoon yoon téye la na yoon def li war ci yow amul benn association wala nangam mooy jóg taxaw nan dañuy intimider nit ñi nee naa intimidation moo jeex Sénégal jamono ji nit nini ligé la ñu su ngeen bëggee marché nag nañ leen autorisé ngeen dem toogi fu leen neex mais bu leen perturbé nit ñi bu leen indi embouteillage parce que nit ñi am nañu ay soxla yu ñuy doxi muy beneen cas boo xamante ni amoon na fi muy marche yu yaanaamaar bi nga xamante ni autorisé wuñu ko ak liberté bi nga xamante ni ñi ngi koy sàkkul kii di kilifa ginnaaw bi Simon amee liberté provisoire na Amadou jàll moom it génn ci kaso dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni Thierno Amadou Diallo mi ñu jàppoon moom ci boppam mom ci bopam mi japon mom mi filmé won kilifa mo yëkëti cadre yoy teg ginnaw lolu loolu kilifa porté won na plainte ndaxte mom mo porté plainte bu len faté ni kilifa dafa am dossier mom mo porté plainte contre vidéo bobu donc comme affaire bi mi ngi enquête donc yeen waru len jóg di taxaw di laajal kilifa liberté provisoire léral nee mo moo njëkk vidéo bi léral convoqué nañ ko lundi bi passé dem na wuy ji enquêteur yi déglu nañ ko donc da ngeen di xaar ba enquête bi jeex ñu xam justice lan la décider je crois que nul n'est au-dessus de la loi préfet nak ñu ngi lay ñaan su dé Y'en a marre déposer marche vendredi prochain ngallaawaay ñu ngi lay ñaan autoriser leen sen marche bobu ñu xey dem doxi ji def sen marche su leen nexé samedi ñu marche su leen nexé dimanche ñu marche su leen nexé lundi ñu marche mardi ñu marche mais nul n'est au-dessus de la loi képp koo xamante ni fauté nga da ngay accepter yow yaa fauté nga assumer et tu paies les conséquences. balu yango ya wlenyo koy jiñ yëguloo fekke woo fent wax yu ñaaw am ba ba